fii ci parcelle Parcelles Assainies unité 7 ñu àndoon ceeg jëmm ju tedd nag euh, euh, juñ toogal muy sëriñ Adama saar Baye Fall bokk ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall mu waroon a indi ay kàddu yu seede ak kàddu yu fàttaliku ci jàmbaar jooju ci liggéeyam bu boobu ak kàddu yi nga xamante ni mën na ko yëkkanti ci digganteem ak sëñ Cheikh Fall Baye góor mu nekkoon wasilaam ak liggéeyu Serigne Touba ak Cheikh Ibra bi kon dañuy bokk teewlu sëriñ Adama Sarr Baye Fall jox kàddu gi mu doxal. ausubillah mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim aw nu ko yaamu xiinu wa bika bokki jullit yi fi daje bokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaara bu baax te di leen balwaat di leen siyaare li ñépp bokk te yàlla jëfe ci coobareem muy sëriñ Njaga Jóof Jóob góor yàlla ci taxawaay bu mu taxaw ci diine lislaam ak taxawaay bu mu taxaw ci yoonu murit ak taxawaay bu mu taxaw ci kër Cheikh Rafal di yoonu kër Cheikh Rafal ndax mag ñi dañ daan wax yoonu murit mu ni bu yoonu murit dee yoon dëkk ban la jëm ñu ne tekk mu ne sëñ Touba amul yoon man maay yoon wi sëñ Touba ab dëkk la yoon wi man ku jaar ci yoon wi yegg ca dëkk ba kon yoonu Cheikh jëm ci dëkk bi muy sëñ Touba muy Touba sëñ Njaga taxaw ci jataay boo xam ni kenn amul remplace am wala boog ci sunu gàtt xel wala ñàkk xam-xam amee sul diw te yàlla jeexalut dara bëgg gaani toll ak xër gi. ak ku ñàkk loo xam ne defa nga ne dootul am sam xel lay jaxasoo waaye njaga fi mu taxaw ci kër Cheikh Rafal taxaw ko ci kër Sëñ Touba taxaw ko ci diineeg lislaam ak bokk gi ak jullit gi bokk ko ci réew mi dañuy gàtt xel ni remplace du yomb ndax yar baag teggin yaag sutura ak xam gi ak maandu gi ak cawarte gi ak juddu bu bi nga xëy war naa bokk ci sëriñ Dakar wi ba noppi topp Cheikh topp sëñ Cheikh moo ki waajuram ak rakam ji di soxna Ndiémé ak doomam mi yor di sëñ Moustapha sëñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Mbàkke Joosee ngi nii toog li ci dal rek moo ko ci dal kenn ku ne dangay defe defee njaga yaa ko féetewoo diggante boobu soxna Ndiémé moo dox loolu ba ñu mel ni doomi ndey nun ñii sëñ Cheikh Fall Baye Góor Baye Mor Ndiaye Tombou del Baye Cheikh Ndaw moon woonu ñeent ak sëñ Cheikh Fall muy juróom mu ni seexala naa leen Cheikh Fall na leen sëñ wax loolu bàyyi tomm ni Cheikh Fall ne dama bindul ay téere di fi bàyyi ñi di ko waxtaane waaye dinaa fi bàyyi ay mag yoo xam ni danañu gudd fan ñu fekk lu bare te lu ñu wax ci man dëgg la daal di dugal naa leen ci groupe boobu moom sëñ Cheikh Fall Baye Cheikh Ndaw daal di wax ni noonu muy waxe waaw daal ni su wax jotee te waxu leen ma nangam bi wax jotee ca déwén sa rek am na ku ma dégg mu nettali ko ci bi ñu nee ci wàccaay war koo yóbbu Touba suñ njaga daa bokk bal di defi loolu ñuy def basket rob sëñ Cheikh Fall gaa yi ne ko nan dem siyaar sëñ Cheikh Fall mu dem wëlbatiku dem siyaar sëñ Cheikh bokk bal sëñ Cheikh ne ko bàyyil bal bi te denc ko te dem solu te ñëw mu dem denc bal bi solu sëñ toog loo ko bi mbooloo mi siyaaree bay ñibbi sëñ Cheikh Fall ana Njaga Jóob mu ni maa ngi nii mu ne waxtaan ak bindeef yi waxtaan ak bindeef yi keroog la Njaga jëkk a taxaw ci mbooloo. ne sëñ Cheikh nee Cheikh Rafal nee ko magi mu sëñ mu Fall toog Baye Tom ma ngi ci Baye Danga ngi ci Baye bay Modou Mbaye saa ngi ci Baye Ibrahima Thioune ngi ci ak mag ñu bari ak Baye Cheikh Ndaw njaga waxtaan ba noppi sëñ Cheikh ne ko nag bul demati ca lee gàddaayal ca lee ñëw ci lii daal ne ko seytaane nag ku ci bëgg a mucc. doo dem fa mu dëkk nga dëkk ak moom da ngay bàyyi fa mu tuxoo dem fa mu bañ a dem ndigal la seytaane toxo tere la dëkk su la wóoree dootoo jaar ci tere doo gisee ak seytaane waaye bu la wóoree doo fa jóg kenn mun laa tàggale ak moom bàyyil fa mu tuxoo dëkkal fa mu tuxoo bàyyi fa mu dëkk ndigal na seytaane du ko jege njaga nag yow digal naa la adduna bu ci toppati dara demal ci lu la suñ taa sant Cheikh Fall sant la ko nga séen ma ca jàppal ni loolaa gën àddina ak àllaaxira moo gën ci yow lool sëñ Cheikh Fall la ko wax. keroog la sëñ Cheikh Fall jàpp sunu ñaari bopp yi teg loxo bii teg loxo bii ci ñi ñaari bopp ni seexale naa leen yaayam ji yaayam di soxna Diop moo njéeme mi moom laa jëkk a xam ñu ñëw ci yaayam kolobaan mu jox ko sëñ Cheikh Fall bi sëñ Cheikh gàddaayee dem àjjana mu jox ko sëñ Modou Ablaye Fall moom sëñ Ablaye Fall Ndar yaayam dana wax ne yaa maay sa man la def may taawam su ma ñëwee ci kër gi mu woo ñi sëñ Mbar Diop wala mu tudd Maodo Sylla mi doon grand sëñ de Dakar te ñëw bokk lépp Cheikh Fall lay wax sëñ Touba xasida yi l'islam diine ni ngay def ba jariñu ak ni ngay def ba doo jariñu di gindee di jaarale ciw yoon te jaar ca nag ndax Seera ko ne koo jaarale jaaral ci yoon te jaaroo ca yoon wa bu yàggee yow lay topp ku réer mënta gindee ku xamul mënta jàngale ku yorewul mënta yare ku maanduwul mënta santaane ak maandu ku tabewul mënta maye ak du mën a maye ak maandu njaga yooyu boole na ko njaga du këriñ du mat du boob njaga dóom la mbaa wëteen boo laalee weex boo la laalee nga weex moom dóom wëteen boo ko ëppee doole ba jog ci kawam muy wëteen boo bàyyee mu nooy ni wëteen rek njagaa ngoog ku maandu la ku baax la ku amuk taalibi la ku sëñ Cheikh Fall gërëm la ñoo ngi koy sant te di ko ñaanal ci barkeb sëñ Cheikh ndigal bi fi neel sëñ Cheikh Fall ak sëñ Cheikh Sam mi nga xam ni moo doon wasilaam tey taawub sëñ Moustapha di taawub sëñ Cheikh Fall bàyyi góor ñu ngi ko koy siyaare dika ka siyaare sëñ Njaañ Mbàkke muy sëñ Mudu Musaa Mbàkke sëñ Mbàkke soxna loo ak sëñ Cheikh Jëmb kere duggoo ba bi ñu koy julee yabal na sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi ñu tuddee sëñ Cheikh Ndigal kere moo fa nekk ak doom yaag rakk yaag ñëpp ak jëw ñi sëñ Cheikh Jëmb bàyyiwul kenn ci kër ga ñëpp la fa yabal ndax njagaa toll noonu murid yi kuy gàddu xasida mbaa nga ŋàbb micro mbaa nga déglu kuy jàng mbaa koy waate ñëw nga ca jullee ba kero ñëw nga ca duggoo ba ñaanal ko bari nañu dem te mu mënuñoo am loola waaye la sëñ Fallu waxal rek moo ci ne sëñ Fallu doon ku liggéeyal sëñ Tuubaa donga yi fay la njaga liggéeyal na sëñ Tuubaa donga yi fay na ko ku liggéeyal donga yi sëñ fay la sëñ Fallu ba mu ko waxee dañ maa mag ci donga yi maa ci jiitu mu Moussa Fall ci topp ku liggéeyal sëñ Tuubaa maa lay fay maag njabootu Cheikh Fall ak njabootu sëñ Tuubaa kon njaga ñëpp a ko fay sëñ mun Muntaxa ñëpp yàlla nañ fi yàgg te nu yàgg feek ñoom te yàlla bu nu beew yàlla bu nu gis suñu bopp te yàlla nu sax ci ndigalal sëñ Tuubaa li ma déggoon benn soxna di ko waaraate daane yatt yi gën a baax ci yoonu murit muy jàng xasida naan kafe gëm Seex Rafal bëgg ko loolu njagaan ci moom jàng xasida naan kafe bëgg Seex Rafal gëm ko ku jàng xasida di naan kafe gëmoo Seex Rafal maanaam sonné mbaa nga yor sondeel buy tàkk la rek bu jeexee day jël waaye du teel nen Cheikh Fall ngoog yàlla sëñ bi taxawunu sëñ mu taxaa yàlla na ko fi yàlla bàyyi te bàyyi nu fi li mu yéene ci réew mi li mu ci bëgg yàlla na ko am muy jàmm ak mucc ak xiiwal ak faatu dem àjjana xam-xam bi dellu fa mu neen mbas mi ñuy dégg ci réew mi yàlla na ko Cheikh Fall dàq yàlla na ko sëñ Touba dàq ci barke sëñ Cheikh jëmb noonu ko sëñ Fallou Fall waxe sëñ Moussa Mbar waxe ko nan wéy ci loolu wéyee ndigal li di moytu di saafarawu lu ñu ne baax na nu def ko lu ñu bon nu teggi ko te wéy ci ndigal te gëm sëñ Tuubaa gëm Seex Rafaal piste bi fi neen moo jur ñu fi bàyyi ràmm bee jur ñi fi neen wagajee jur ñi fi des kon nag mu rafet njot ci diggante suñ duggante suñ Tuubaa xam ne lu mat a dàq dina ko dàq ku ci faatu bu lii xewru woon it nga faatu ku ci muccit boo lii xewee nit bu dee nga mucc yàlla na yàlla taxaw njaga yàlla yàlla taxaw njabootam taxaw ay rakkam